Oustaz Omar Diagne man Mame Mor Mbaye maa lay yëgal ne fen nga fen wu rëy wa nga daan fen wu toll ni wa nga daan fen rek wii sax ko gën mag ndax yow ku la gis xam ne amoo jom amoo ros amoo ngor ndax ku toll ni Serigne Touba nga xam ni coono gumu am ci àddina ñàkk déggoog tubaab bee ko teg boo amoon ngor wala jom day wala nga am ros war ngaa mus rusa wax ne. tubaab bee ko daan jox ndigal ci nàngam loolu nag sax ñàkk jom ak sax bon ak sa mën a fen ndax ku la gis xam ne Sénégal bu benn saam desoon ci fen ñu ne jël nga ko fenkat bu rëy nga ku bon nga ku tekkiwul dara nga li ma la wax nag lu la ci naqari lu mu tuuti tuuti boo ma ne woon fii dëkk rek duñ def vidéo ndax yéen ay tapet ngeen da ngeen di affronter murit ba noppi laqatu. waaye mag ñi ngay jéem a sikkal ak di la jéem a tiital ak di leen jéem a tuutal ñoo la gën gën say maam dàll murit bi bu jee jéppul tey jox boppam sëñ Tuubaa buñ ko foroon waru dal wa moo la gën yow sa ñàkk sant nag moo tax ngay def lii ngay def waaye amati nga ak ñàkk jom dellu delloo nan la ko li ngay wax nag da nga ko am foo ko dëkkal waaye dëkkul foofu fii mu jógee nga jëpp la dëkk yow yaa jot ay financement doon nit ku tekkiwut dara doon nit ku bon lii nag maa ngi ciy ñaan waa Xuddamul Xadim kuréel gi nu bëgg taxawal fii ci Ndakaaru sëñ Bas Coro noo ko ci ziar baax di ziar baax jëwriñam ja sëñ sëñ Amsatoum sëñ Abdoulaat ak sëñ Abdou Samad moom sëriñ Soyibu nan nu ko taxawalal nu mu gën a gaaweer gaaw gaaw ndax ñu réew ñi fii lañ ne ñu tekkiwut dara fii lañ ne ñi bañ ñëw nu murit fii lañ ne Israël nag waroon nga caa wax ndax foofa. ñoo ñoo ñoo ñoo songu lislaam ni ñu songe lislaam nag nga songe yoon wi yow da ngaa àttanul armu ndax xam nga ni boo jëloon arme jëmee ko Touba nu duma la moo tax nga jël sa làmmiñ woowu nga xam ne làmmiñu tooke la jëmee ko ci yoonu murit man maa Mor Mbaye nag maa la ko maa la ko wax di xaar rek sa réaction lu la ci gën a naqari rek yow yaay dulkat bi yaay fenkat bi yow yaa tekkiwul dara yow yaay topp ci ginnaaw tubaab bi Serigne Touba du sa morom du sa moromum bàyyi taalibeem bi gën a ndaw du sa moromum bàyyi wasalaam.